boo xamante ne waroon na wuyu ji tey ka nga xamante ne moom mooy section de recherche et que mu wax ne du defeere à la convocation un député boo xamante ne il est protégé par son immunité parlementaire nan lañ ko war a mën a convoquer sans pour autant ñu jaar fi nga xam ne foofu la ñu war a jaar maanaam saisir le ministre de la justice mu saisir l' assemblée nationale ba pare ñu doon ko mën a woolu nan nga mën a comprendre loolu. jërëjëf euh, euh, nit nit garabam. l'honorable député Ousmane Sonko sama naatangoo la. Mhm. en tant que député. sama nawle sénégalais la. Mhm. sama mbokkum daara la parce que ñoo bokk ñun ñëpp. Mhm. nekk des produits de l'université Gaston Berger. man samay jamono Sanaar lañ doon wax Sanaar 1. ñu bokkit yeneen alal yeneen diggante te jullit laa bëgg nekk te sunu borom. dafa nekk maandu. bëgg it doomu aadama yi maandu moo tax lu ci nekk dafa mooy condition conditions ay critères pour nga mën koo qualifier mën ko apprécier. ba fi ma toll dama bëgg a jox cër sénégalais ak sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw waaye rawatina ki nga xam ne nii moom nga may laaj ci mbiram te mbir mi du moom rek la soxal ndax am na ñu ngi ko seetal ni ma ko déggee. ñu ngi ko digaaleel. li ma xam daal ba xam ko mooy en tant que. citoyen en tant que député. Mm-hmm. bu lëf tàbbee ci yoxoy justice. Mm-hmm. dama cee war a maandu ndax bugguma cee wax. waaw mais mais honorable dañ la laaj. le procédé maanaam euh, dañ la laaj ne Ousmane Sonko dañu ko convoqué yow député nga ngeen am mbalaanu kiir laay boo xamante ne moo leen mbuur et que euh, tey jii section de recherche convoqué ko mën a du dem ñu am la fi il faut ñu nga leeral ñu bu fekkee mën nañu ko am ci yow Ousmane Sonko loolu mu bañ ne du ko def te juriste yu bari ànd ceek moom euh, nan la ñu mën a xoolee di convoqué koo xamante ne dafa am une immunité parlementaire sans pour autant ñu jaar ci assemblée nationale ak ministère de la justice. li ma la mën a wax mhm. su doon man la lu mu métti métti métti ak lu mu yéeme yéeme. Mm-hmm. maay jébbal saa bopp juste dem ànd ak samay avocat mm-hmm. du ma taxaw ci logique confrontation wala politisation. su boobaa violé bi ndax ndax mbir mi. Mm-hmm. ba fi mu toll nii li ma ci xam. mooy li ma dégg ci rajo mais mais moom bu nekkee député la ambalaanu kiir laay dem wuy ji sans pour autant lever wuñu immunité parlementaire. day violé bi. ni ñu ko tënkee ci règlement intérieur bu assemblée lu waay di wuyoo da koy niru. ah. lu waay di da koy niru. ok. Hmm. ñu bëggee ñun di joxe le bon exemple. Hmm. yaa ngi may dégg. Mhm. dañu war toujours di prêcher le mouvement en marchant. Mhm. yàlla nañu yàlla bëtal ci yu mel nii. Mhm. Hmm. yàlla suureen comme ni ko Thierno Saïd Nourou daan waxee. waaye su lu mel nii daaloon samay wàkk. du ma fi nekk naan. nii la ne la. waaw mais mais joxe bon exemple ndax sama nawle sénégalais. Euh, honorable joxe bon exemple moom laa joteel. honorable joxe bon joxe bon exemple est-ce que njëkkewul ci respecter li nga xamante ne mooy article cinquante et un bu li tënk doxalin bu assemblée nationale ci député bi dafa mbalaanu kër laay fa ñu war a jaar loolu laa la laaj. dama la bëgg a ne la. immunité parlementaire ci laaj bi en en quelque sorte immunité parlementaire. oui. Mm-hmm. tey ak ëllëg sama point de vue benn la ci. Mm-hmm. député bi mu bi nekk en situation. Mm-hmm. ba intérêt justice. moom ko. assemblée nationale parlement bi boobu moo ko moom. kon bu dee dañu nekk ci état de droit. d'accord dara luy jëm ci salfaañe ko du ma ci euh, am na loo. pour yombal manifestation de la vérité la surtout su ma jàppee man en âme conscience li ñu may la. d'accord wala machination la. Mm-hmm. wala manipulation la wala coup monté la man su ma gëmee loolu. Mm-hmm. danga war wuy ji alors li ma bëgg a xam sànq yaa ngi wax ne euh, mbir mi jarul politisation bi Ousmane Sonko parle d'une cabale politique euh, ci personne ndax yow loolu mu wax convaincre na la loolu ëpp na sama bopp yéem na ma mm-hmm. mënuma ko gëm mm. man damay def lii de deux interprétations damay jël toujours la plus généreuse. Hmm. rafet njort. Hmm. ci sama bopp ci sama njaboot ci samay nawle. bu hmm. dara nag may foog. loolu laa ci mën a wax. d'accord alors dañuy jébbal kàddu gi Ndeye Dimet Ndaw moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyoo. ma lay fay